jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi kii mooy Cheikh Mouhamed Ibrahim borom euh, tawfiix muy kilifa goo xamante ni yaakaar naa miinu leen écran xàmmewu leen euh, kanamam li ko waral mooy jëmm la joo xamante ni dafa làqatu woon di faj aajo yi di dimbali jaami yàlla yi ñu ko daan dégg nag dégg borom tawféex borom tawféex ñu bëri nag jëloon nañ fa ay turam di ko utiliser naan ñooy borom tawféex waaye fi jamono toll bokk na ci li gën a yokk a tax ñu génnal leen kan mooy dégg dëgg yi borom tawféex muy Cheikh Mahamad Ibrahim muy jàmbaar joo xamante ni li ko yàlla dénk ci xam-xam bëri na ay kàngam yoo xamante ni jaar nañ ci moom mu jàngal leen ba tey ñu génn di dimbali jaam ñu bëree bëree bëree bëree bëri fekk naa ko ca aéroport dégg ko micro mu ne ma du ma waxee fii su jógee voyage danañu wax tey nag bëgg nañoo waxtaanee lu bëree bëree bëri mais laata loolu dañ lay bàyyi sëriñ bi nga nuyoog askan wi ñu soog a xoos dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi Cheikh Mohamed ñoo ngi lay ziar. aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alaaji dégg maa ngi lay nuyu di la tatagal yaa ngi ñi nga ànd ak ci wàllu xarale yi ak mboolem doomu aadama ak fu ñu mën a nekk dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, cheikh bi euh, li la yàlla dénk ci xam-xam li la yàlla dénk ci wàllum ñan yàlla ñu bëri na sa xalima ak sa kurus du laal suuf ñu yàggu ko euh, dégg tey ñi xamul bu ñu bëggee xam fan mooy jaar jaar ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mohamed Ibrahim borom feex tey lan ngeen di tegal ne lii moom mooy sa jaar jaar. waaw alaaji dégg maa ngi lay remercier ci question boobu xëy na doonuma woon gënal sax pour di ci àddu. waaye dafa fekk ne xëy na yaa laaj laaju leeral moo tax ma bëgg ci àddu tuuti. Euh, Mouhamed mii Mouhamed la tudd euh, borom taw feex di dàkkantalam ci ay jaam yàlla yu bari yoo xamante ne bi ci jëflante bu rafet bañ dem ba nga xamante ne ñoo ñu adressé tur boobu. ci biir loolu itam euh, génn nañ fi def ay tukki ak ay tourne ngir sàkku ji xam-xam. waaye du ñu gënal ci leeral ak joxe dem nañ dëkk nangam dem nañ dëkk nangam dem nañ dëkk nangam ndax dafa bëri tey ci Sénégal ñoo xam ne tukki ci saal lañ toog rek di tukki bi ma demee dëkk nangam bi ma demee nangam ak lañ ma fa jox ak nangam te fekk na yàlla xam ne demuñ fenn euh, bëgguma xuus wala di euh, expliquer yenn yoo xam ne sax euh, neexuma woon di ko wax ci écran waaye gëstu nañ lu bari nag alhamdulilah ci wàllu galaaj gu ñuul ci wàllu asraar li gën a tuuti ci fiñ jaar ci sax wàllu gëstu ci galaaj gu ñuul biñ ci tollee fanaan ci armeel moo ci gën a tuuti fanaan nga ci armeel ci ay loolu yëpp ngir bëgg xam-xam ngir bëgg xam lu wér euh, te timit xam-xam bu la jaralee daf laa war a jaral ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne euh, dem leen ngeen uti xam-xam même bu fekkee fii ba siin la sax dem leen fa boobu siin nekkagul siin gi tey ñu xam kon xam-xam jaraloon moo tax ñu def loolu waaye tamit utuñ defuñ ko woon ngir shirk defuñ ko woon ngir dara ndax loolu moo dem ba waral tey képp koo xam ne jëflante nañ ak moom amun ci benn réccu te loolu yëpp ñu koy delloo ci loxol yàlla du ngir ndamu wala ngir puukare ngir dara borom tawféex euh, ma gis la nga yor carte mariage euh, carte gi danaa ci waxtaan ak yow ci lu bëree bëree bëri bokk na ci euh, mbirum ñiy jëfandikoo exibet ak pari foot ñu bëree bëree bëree bëree bëri yenn sëriñ si di leen ci arnaqué danañ ci dugg andi ci leeral mais balaa boobu ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy seet ñu ne ma li la yàlla man loo ci seet ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri d' accord nañ ne seet buñ ko weddee bi ñu jàkkaarloowee ak yow yaa tax ñu gëmaat ne ndekete seet am na parce que di wax nit ki ba di ko wax biig ci guddi li mu mujjee waxtaan ak jabaram yaakaar naa mbokk yi loolu moom mooy mën a seet loolu boo ko teg seetu làmbatu cër bi la yàlla cëral ci mbirum seet bëggoon naa nga leeral ci askan wi lay seetaan. waaw loolu dañ ciy sant yàlla euh, du ma wax ngir sama bopp waaye damaa bëgg leeral askan wi. bépp sëriñ boo xam ne da ngay jëflanteeg moom ci ñaan yàlla ak ku mën a doon nga ñëw di ko weexal bala nga weexal da nga njëkk waxtaan ak moom mu seetal la dégg daaj dafa bari ñoo xam ne quotidien rek ci lañ nekk. waaw di la wax loo xamante ne bii daanaka loolu ak euh, doomu yi bi ñuy dund moo tolloo. Hmm. sa nangam yooyu noonu du ma sori. parce que parce que bugguma di euh, yàq yenn ci dund ci ay doomu adama ci di di wuñu seen sutura. Hmm. waaye képp koo xam ne da ngaa dem ci sëriñ. nga bëgg jëflanteeg moom. Hmm. te seetalu la ba gis la. sa aajo mënu koo faj. ak sëriñ bu mu mën a doon. sëriñ bu mën mënta seet mënoo faj aajo. bala ngaa faj aajo jaamu yàlla da ngaa war a mën a seet ba pare wax nit ki biiram bitteem zahiram ak baatinam wax ko démbam wax ko ëllëgam loolu mooy dëgg-dëgg yi sëriñ bu fekkante ne da nga bëgg bu doomu aadama bi ñëwee nga ne ko tegal say loxo am na ci sax fan yi ñu ma gis ñu ñu indi xaw ma phénomène la xaw ma lan la say baaraam nga teg ko nga dessin na ko loolu loolu loolu du seet seet xam la dañ koy jàng am na ay façon yu bari am na ram la mooy seet ci wàllu suuf am na seet ci ndox pettaawkat yi sax ñu ngi seet di gis kon ñun sëriñ si war na ñëw rus di seetal ay doomu aadama te du leen gis te ñun ci sëriñ si am na ci ñoo xam ne dañoo gëm ne ñoo nekk ci dëgg ñii pettaaw ci ay tapale lañ nekk nit mën a dem pettaawkat pettaawal ko gis ko yow nit mën la nit mën a ñëw ci yow nga seetal ko doo ko gis te alors nga ne sëriñ la foo ko teg gis nga Allemagne at mi muy jël coupe bi muy jël coupe du monde am na benn tubaab boo xam ne jigéen la mm. seetkat bu mag boo xam ne dafa seet joxe résultat wu match yi Allemagne war a fubal ba ba muy jëlee coupe du monde bi. te boobu ñu bëri ñu ngi lemoon seen genn toog ndax kenn ñemu toon wax. ndax ñu bëri xamoon nañ de bu ñu leen vaar. te seet boobu bu doon seet seet bi ci lii rek la tegoon muy lii. lii carte ci la aspect moo nekk nii. aspect bii. Euh, bëgguma ci sax développé ndax gars yi dañuy sàcc xam-xam. Mhm. fii la commencé. dalee fa di joxe point par point benn par benn ba joxe résultat wu ne Allemagne mooy jël coupe du monde bi. kon xam-xam tamit mooy li ma la leeral li ma la waxoon ci ginnaaw xam-xam tamit tënkuwul rek ci diggante tomb yeeg euh, rëdd yeeg xaatim yi. Mhm. te bëgg naa la am entre bu ndaw foofu. Mhm. Euh, sëriñ si tamit nañ wàññi di jox euh, ñi nga xam ne dañ leen di ñaan loo yàlla ay xaatim. Mhm. waaw ndax bëri xaatim yoo xam ne ñin koy loo maanaam surgaay sëriñ si. Mhm. daf ci bari ñoo xam ne fenuñ ijji. Ah, te boo leen xaatimloo ñu xaatim lu damm kuñ ko jox mu sangoo ko bu tëjoo yow yaa ko lor. dinaa sàcc wax la tey loo xam ne. Mhm. moo xam euh, bëgguma wax ngir euh, ngir ngir ngir yokk mbon mhm. waaye ki nga xam ne dafa sell wala sellut bu ko defee kenn mënu koo tere ubbeeku dina ubbeeku gis nga gëléem ay dem àllam kum ma a doon ak foo mën a nekk boo ko amee. nga boole koog cuuraay liban nga suuroo ko. lépp lu nekkoon ci yow ci tëju ak gàllankoor may naa leen ko jël leen ko bu leen sax ñëw ci man. da leen di tijji. na sëriñ si ut ay tegtal. Mhm. tegtal soriwut. Mhm. tegtal moo gën a gaaw ci ubbi doomu aadama. waaye jël fii rëdd fii xaatim fii nit ñi xaatim nañ ba sonn kenn gisul dara. itam sax ku jël soble jëm ci ay puso xam nga yooyu tamit du xeetu xam-xam. waaw am na ñoo xam ne dañ koy askanale sax Euh, soble ci gën a tuuti waaw damaa gis ne bu fekkente ne xam-xam mi ngi ci yow dëgg jarul indil ma soble jarul indil ma sax yeneen yi nga xam ne fan yi mooy bugguma bugguma bugguma daal nekk euh, aji wuññikatu sutura waaye yaa tudd soble moo tax ma wax loolu soble mooy li gën a tuuti ci dimbale nit ki ci wàllu nopp dinaa sàcc wax la tuuti am na benn secret boo xam ne euh, tegtal bu yomb la gis nga doomu aadama bi tenqam bi. tenq ndey jooram bii. muy doxee. Hmm. su ko raxasee. jox ko nit mu naan ko. ak kum mën a doon dina ko topp kom xaj. sëñ bi euh, jigéen ñi ne ci kër yi di sëy euh, asomé seen jëkkër yi. loolu maa ko joxe cadeau. tenq mi. bu ko raxasee def ko ci ndox wala ci lu ñuy lekk wala ci lu ñuy naan lu mën a doon. képp ku mu ko jox borom këram ak ku borom këram dina ko topp comme xaj loolu man maa la ko wax tey xam-xam soriwut ni gaa yi ñoo gësuur rek te timit bu ñu yem ci asraar beeg kayfiyaat yeeg tey bëri na ñoo xam ne boo demee ci seen way ndere yi lu ne nga fay fekk lu ne lii fii laa ko jëlee lii diwa ma ko jox lii diwa ma ko jox lii diwa ma ko jox te sa aajo sax fajuwut ba ngay faj aajoy keneen loolu yëpp dara sababu ko lu dul euh, euh, gàtt yitte na nit ñi guddal seen yitte yi góorgóorlu ci xam-xam ci tegtal surtout tegtal waaw ndax tegtal mooy loo xam ne bu nit ñëwee ci yow yéeféer la ak jullit la moo ci yam bu ñëwee rek aajoom faju waaye te alquran boo ko jëlee jox ko euh, koo xam ne du jullit yow yow yow yow yow lislaam nga njëkk a saaga sax te bëri na fi moo tax maa ngi lay ñaan yow it loo ci gën a mën a góorgóorlu na nga ci góorlu ci sensibiliser sëriñ si ñu gën a aw ci méthode woowu ak gën a roggantiku daal incha allah rabbi. sëñ bi nga ne ma euh, ñi waxtaan ci pari foot ak expert euh, ak yenn kart yi sëriñ su bëri ñu ngi ciy ñaanal nit ñi te arnaque la nga ne ma euh, pari foot wala expert sëriñ bu ko man doo ci ñaanee nit ñi ñii di ñaanee nga yor say carte ne ma carte yi dama lay bàyyi nga expliquer sa bopp askan wi xam parce que li nga ma dee waxtaan ci ak man damay bàyyi nga waxtaan ko ak Sénégal la ñu xam. bugguma ci woon a développé waaye fan yi li ma jot ci ay appel dafa bëri mhm. diw nangam arnaqué na nangam. diw nangam waxoon na ma nangam match nangam def naa ci nangam euh, ma gis ne loolu dafa dem ba sama xol attanu ko. gis nga carte yi nga gis nii. nga xam ne am na lenn ci sëriñ si sax ñoom dañ koy aaye seen kër yi ndax nee nañ dafay ume. day day dafay ume ci liñ wax. carte der carte umu carte ume wut. Ah. ah tubaab yi ñu gën a ubbeeku te carte yi seen réew yi la wulee ñaay di. kon kay carte ume wut. carte yi xam-xam mi ngi ci. ay secret mi ngi ci. ci kaw boo gëstoo di nga ko xam. tey dafa bëri ñoo xam ne biñ ma woowee ci wàllu mbiru football yi paase nii. di ma wax waxi ay naxak ay e, yu ñu leen def ku ma waxtaanal dama lay laaj ki nga doon jëflanteel ci lan la doon seetal. am na ñenn ñi dañ ne ñi leen doon seetal dañ na ma may ma tuuti ma jël ndox mi ñenn ñi na leen may ma tuuti ma jël tomb yi man leen mbir mi du foofu. mbiru jongante. waxuma la football de jongante. jongante rek. ci lépp lu ñuy jongante. politique làmb. politique làmb moo ci gën a tuuti. jongante. am na loo jéggi ba ci ba ci ba ci course fas yi. Ah ci jongante yi fi jiitu ci la bokk. te ba léegi joma jongante cosaan la. boo demee ci buuri àddina yi ci buuri arab yi. alal yu bëri lañ ciy def. di ci parier di ci am di ci am di ci am ay ay ay bonheur yu bëri yuñ ciy def. yow xamante ne bii xëy na ñun ñoo ci mujj a jot. mbiru jongante bu mu mën a doon. ci lii lañ koy seet pour mën koo gis. tubaab yi ñi fa fa nekk di fa dund xam nañ li may wax. bëri na ci ñoom seeni seetkat yoo xam ne ay seetkat yu mag lañ yu wér yoo xam dañuy seet di gis comme ñun suñu gisaanekat yi nu ñuy gisee te amu ci ku ciy gisaane lu romb lii. Hollande lii la ñuy seetee seen tubaab waaw e, e, e, yaa ci yegg. Mm-hmm. benn foire boo xamante ni. seen seetkat lii la ñu kon mi ngi noonu. Mm-hmm. kon lii secret mi ngi ci bu wër mm-hmm. waaye tey euh, xaaral ma ndoxak xaaral ma rëdd ma tomb ak ma nangam loolu euh, du seet boo xam ne buy gis la ci jogante. loolu moom tey dinaa ko alerter mboolem sëriñ si muy dars bu bees bu ma leen jox. nañ ci roggantiku dem jëlaat aliwo yi. ñu buuralaat yi tey yi. te xam ne xam-xam la bu wér. boo xam ne ku ci góorgóorlu yàlla mën na la cee sedd. seet nag am na. waaw seet lu wér la. seet ci ndox am na. seet ci kurus am na. seet ci ram la ci wàllu tomb am na. seet bëri na ay façon xanaa xamoo ne seetu lenn muy lenn ci euh, sama naataango yi nga xam ne dañuy faral di def jékki-jékki léegoo léeg naan la fan yi diw dana faatu diw dana nangam diw dana nangam xanaa moo ne gone gi gënaan tuuti rek bu ñëwee ba mu ko jàngalee sol sol sol ko ci boppam bu ko neexee weer wu ne la xew daf koy wax loolu soriwut gis nga bu guddigi gi soree ñetteelu xaaju guddi gi mhm. quatre jëm kaw gis nga boo téenoo nga am loo jàng. balaa fanweeri minute diirub semaine boo ko defee. Mhm. bu biddiw fàqee xam nga biddiw biddiw biddiw yi. boo laajee lenn ci mag ñi. xam nañ ne am na ci ay waxtu ci xaaju guddi gi dafay faral di fàq gis nga bu biddiw fàqee jëm kajoor nama yàlla baal euh, maa ngi jéggalu sax ci adresse bi comme euh, ni ma ko adressé noonu bu adressé woo jëm kajoor wala bët nangam wala nangam wala nangam fi mu dem mhm. bu la neexee nga affiché ne zone boobu balaa yàgg kilifa dana fa jugee àdduna dina fa juge génn àdduna loolu lu loolu loolu loolu lu la bu ma gisee nit bu ma gisee nit di ci bàkku daf may def ay reetaan mhm. loolu terre à la xam-xam duhut ngir di wuññeeku wala di wala wala di bakku xam-xam bu la ko joxee pour nga dimbale doomu aadama yi la waaye dañ bàyyi loolu loolu du xam-xam wax naa la ko léegi ne la xale bi gën a tuuti su ma ko solee ci moom su ko neexee bu subaa mu génn di def liñ koy tubaab di waxee révolution xaw ma di leeral fan yi dina am lu xew fan yi nangam dana nangam nangam dana nangam loolu nañ ko bàyyi ñi ci newoon nañ ci jóg loolu du xam-xam waaw loolu du xam-xam. seex euh, bi bëgg naa dugg ak yow ci euh, kaaraange dëkk bi nit ñi dañoo ragal nit ñi amatuñu fit nit ñi ñemetuñ li ko waral bokk na ci mbon gi toog di liggéey am sa entreprise benn samba booy tollu fële dem ci sëriñ ne ko yàqal ma diwmeekat entreprise ba ba mu dox wala benn samba booy ne diwmeekat bëgg naa mu tëdd feebar ku bëgg mucc fan nga mën a jaar moom ci kaaraange ba jëriñ ko. Euh, li nga wax noonu dëgg la. chaque jour ma euh, dajee ceeg ay mbir yu bëri yoo xamante ne sama yaram daf ci daw am na ñoo xam ne doy na waar daal bu yàggul rek jëflante naa fee benn doomu aadama boo xam ne. Mhm. Euh, dafa am luñ ko def. loo xam ne ci wàllu euh, li olof di wax naawtal la. dañ koo naawtal dañ mhm. biñ koy naawtal fekk mu am ginnaaw nekkul nag maa ko doon ñaanal. Mhm. xëy na. am na ñu jiitu woon ci moom ci ay ñaankatu yàlla yoo xam ne euh, am na am na am na ñum doon jëflanteel ci ay ñaankatu yàlla ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu am kurus lañ bi mu ñëwee ma xamal ko ne ko yow nawtal bi la defoon ngir nga génn réew mi la nga génn Sénégal abal sawa gox ak sa waa entreprise waaye da am wéeruwaay mm-hmm. da am wéeruwaay. Mm-hmm. ñi la doon ñaanal bu leen xeeb ñu mën a ñaan yàlla lañ. Mm-hmm. parce que dafay def bu xëyee ñëw ba ci entreprise fu muy liggéeyee. nee na du nekk ci jàmm. waaye bu jëlee machine am ba génn ci biti ba toog ci otoom moom otoom la mujj def muy biroom seede yàlla. otoom la mujj def muy biroom otoom. Mm-hmm. daf ne ma su ma toogee ci sama oto damay nekk à l'aise damay liggéey. waaye su ma duggee ci biir bureau bi rek damay mel ni ku ñu sànni ay xalu safara ma ne ko loolu nawtal la mhm. nawtal la woon pour nga génn réew mi mhm. waaye ñi ngemb ñoo nekkoon ay boromi xam-xam ay boromi ginnaaw mhm. looloo tax mbir mi mujjul àgg foofu tey dinaa may xam boo xam ne mbooleem réew mi gis nga xobi si déem si déem mi nga xam mu waaw boo ko jëlee xob bi nga jox ko jigéen ju mas xam góor jigéen ju vierge yaa lu jafe nag waaw xaw ma jafe na wala jafewul. loolu dem ci hôpital yi xale juddu léegi nga fex ko ko jox waaye jeunesse bi dox nii dana ci jafe. waaw loolu euh, xëy na yow nga jafeel ko waaye wolof nee na fa ndox daan euh, taaba léegi boo fa demee di fek fa tepp tepp euh, loolu. waaw xëy na loolu alaaj dëgg yaa ci yegg. Mhm. waaye loolu lu am la test ko sax am na. Ah? waaw. xëy na du fi xaj du ma ko mën a leeral am na test bu ndaw bo test yi xew léegi ci xaw ma mbiru euh, éco yeeg euh, yooyu pour ngir kii mi ngi ànd ak ndawam moom déet loolu dinaa la ci jox mas a jox benn xam-xam bu ndaw ah. boo xamante ne bii képp ku ko def di nga xam kii lii mi ngi ci moom wala newut ci moom yaa ngi dégg mm-hmm. euh, ma entre parenthèse foofu xob yi nga xam ne moom la ñuy wax xobu dég euh, moom moom la ñuy wax euh, déggu sumpu mhm. moom la ñuy wax sumpu mhm. da ngay dindi dëgg yi ngay jël xob yi kese soo ko joxee jigéen joo xam ne masta xam góor mu dëbb ko ba mu nekk sunguf mhm. boo ko sangoo lépp lu nekkoon ci yow ci liggéey ci yàq-yàq ci gàllankoor yàlla dana ko dindi yàlla dana ko dindi te timit pour wan la lu koy dëggal ne la loolu lu am la xamoo ne mag ñu njëkk ñi bi climatiseur amut bu mag faatuwaan ah. xob yi dégg lañ daan jël muuree ko ko. daan nañ ko muuree nit fukki fan ba weerta du yàqu. du yàqu waaw. àll suñu suñu réewu kaw yi nga xam ne mbiru clim mbiru euh, courant wak yi egg gu fa. Hmm. ba fii may wax ak yow bu doomu aadama faatoo xob yi dégg la ñuy jël muuree ko ko. ba ay mbokkam ñëw. loolu tegtal bu wér la. képp kuñ ko def dooma képp ku ko jël nga def ko nii ma la ko waxee doomu aadama mënu laa yàq ci kaw suuf te képp ku jug pour yàq la dana këpp ci kawam. 14 euh, nañ tey dese yi tamit doy na waar loolu jamono ji ci dëkk bi. waaw wàllu dese yi moom du ma ci bëgg xuus ndax loolu mbiru xëy bu la te wax naa la léegi ne la bëgguma bokk ci ñuy fuglu di oote loo xamante ne bii donte ne bu ñu bu ñu ko yàlla xamalee tamit nëbbu ko moo ñu gënal waaye nag dinaa la lanceel benn benn euh, nu ñu koy waxee ci tubaab. défi euh, at mii at mu nar a bëri ay puune yu ay nit di sàcc di leen jaay lañ. Mm. waaw puune képp koo xam ne yàlla daf laa njabootal. koo xam ne dafa puune. Euh, nga xam ne nattu la rek boo xam ne yàlla moo koy tege. Mm-hmm. ak doomu aadama bi fu mu mën a doon ak fu mu mënti nekk. nañ ko jël di ko làq te di ko sécuriser. te buy génn mbaa muy dox bu mu di dox moom kese. am na ñu ci teg ay malati 40 million laa la wax ba 60 million ci diggante fii ak élection yi ci ay tegtal yu ñu leen jox. waa puune secret daf cee nekk. ba ci wàllu nguur wàllum alal puune dafa am ay secret yu ci nekk. am na ay bërëb yu ñuy wax jura mooy bërëb yi nga xam ne dañ fay gas euh, mbiru or ak jamaaw ak yooyu bu tawee dëgg bu fa sottee deretu puune rek dafay dafay feeñ. bu nekkoon ay kilomètres ci biir suuf dafay génn. waaw loolu loolu xam-xam la bu wér bu am. moo tax euh, ñu di ko digal ñu bëri ñoo xam ne euh, ci wàllu xëccoo yi. am na nag ñoo xam ne àddina jaral na leen ko bañ préparé ko teg ci ay alal teg ci xaalis bu bëri waaye loolu dafa sori way xëccoo yi nañ dem uti ay jaam yàlla yu sell ñu duggal leen xalwa ñaanal leen yàlla téyal leen kurus ngir li ñuy yootu ñu jot ci te buñ ci jotee muurloo ko képp koo xam ne def nga xeet yii ma la wax ci xeetu ñaawte fii li ngay ut boo ci jotee tamit doo ko muurloo waaw foofu laay tëjee képp koo xam ne jaral na la ba nga def ko. boo ci jotee tamit doo ko murloo. xam naa ne waxtu bi tamit euh, du fi xaj ndax euh, yitte yi ñuy xaar dafa bëri. moo tax euh, maa ngi lay sàkku tamit ñu yemale foofu waxtaan bi. ay jotaay yu bëri incha allah rabbi leen ko permettre maa waxoon ne la maa nekkoon ci tukki. waaye jamono fii ak koor gi ñu ngi fi incha allah. incha allah rabbi lépp loo lépp loo. balaa ñu tàggatoo bëgg naa may nit ñi ku bëgg alal lu mën a def ba am ko. waaw alal moom. Euh, am na ci ay secret ay yoon yu bari yu bokkul. wax naa la ne la am na ñoo xam ne daf leen di jaral ñu koy ut ci wàllu galaaj gu ñuul. am na ñoo xam ne daf leen di jaral ci wàllu ñaan yàlla. waaye bu dee alal ci ñaan yàlla. am na ci bu wér. boo xamante ne bii ñaari façon la. am na ci benn bi boo ko amee dépense rek nga mën a am. waaye doo am alal waaw secret dépense euh, xamoo ne dafa am secret bu am la bu wér la waaw dépense maa ngi digal mbooleem doomu aadama yi nga xam dañoo xawoon a ragal seen kër yi ragal takk soxnaa yu mel noonu mhm. nañ góorgóorlu takk ku takk ta te amoo loo ko jox boo ñëwee ne boo ko joxee boo ko defee mhm. bu set bu fekkee fukki junneeg ñaar fukki junneeg juróom benn junne mhm. loo war a dépense oo am ci bis bi suñ maam yi ñoo ñëppoon ay soxna te amuñ te amuñ woon benn fonction xaw ma gi duñ tumuranke danañ lekk danañ naan te danañ leen solal danañ leen ordu danañ leen defal lépp kon loolu am la waaye am na ci nag beneen yoon boo xam ne moom yoon la wax ne alal moo ko tax a waaye boobu xajut ci écran wala ci télé ndax wax bu nekk ak place am dafa am waxu biir nekk am waxu penc am moo tax loolu du bëgg di ko siiwal fii ci waxukaay bi waaye incha daal képp koo xamante ne bi yitteel na la ñu am na fi am na ci rew mi am na tamit lu ñu ci yàlla sédd am nañ lu ñu ci yàlla sédd incha allah ay ci mbokk yi dégg ngeen Cheikh Mohamed eh, Ibrahim borom tawfiix li mu waxtaanee mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la waxtaan woo xamante ni noflaay la waaye waxtaan wi ngëneel la bëggoon nañoo yàgg Cheikh ak moom waxtaan mais tey la ko yàlla doogal muy borom xam-xam bu maandu borom xam-xam bu ragal yàlla di kilifa goo xamante ni kàggu yu mag ña la yor kàggu yoo xamante ni boo fi ñëwee danaan la lii lii moo ko tax a jug lii lii moo ko tax a jug te lépp nekk loo xamante ni képp ku mu ci yàgg jëflanteel ñi may seetaan te yàgg ñëw ci dëkk bi yàgg ko fekk xam-xam bi ko yàlla dénk am na ñoo xamante ni bu ñu ko gisee ci écran sax danañ ne lan moo tax sëñ bi génn waaye mbokk yi xayrukum man ta'allama al-qur'aanu wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàngal xuraan ba pare te di ko jàngale kon ki xam te xamalewul daanaka moo jaayil ñoo yam waaye ñu mel nii bu ñu toogee tëju seen kër yi bàyyi ñi mënul di wax bu boobaa loraange dana tàbb ci askan wi. lii wa yokk tax tey sëriñ bi génn numéro téléphone sëriñ bi mu ngi noonu affiché ci suufu écran mbokk yi ñu doon topp di ñu ci improtive TV yi yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah